ci nationale bu Sénégal euh, tey jii gannaaw euh, li nga xam ni mooy am moo am ci information boobu euh, dafa am benn communiqué boo xam ni fédération sénégalaise de football moom moo ko daal di xaatim mm-hmm. di ca wax rek ni fédération sénégalaise de football dafa daal di di informer opinion. Euh, public bi maanaam askanu Sénégal lay daal di rek euh, informé. Mhm. Euh, ci benn lettre boo xam ni ci tey ji le 30 septembre 2024 la ko daal di recevoir. Mhm. mu nekk une lettre confidentielle boo xam ni madame la ministre de la jeunesse des sports de la culture madame Khady Diène Gaye mhm. moom moo ko daal di rek joxe di wone rek maanaam ñàkk renouvellement bu fédération sénégalaise de football bi ñu war a def ngir ni moom Aliou Cissé daal dafa. dafa nekkoon euh, li nga xam ni moo di entraîneur équipe nationale du Sénégal euh, contrat am euh, jeexoon na depuis le 31 août 2024. te gis na ni daal euh, gagné na li nga xam ne moo di CAN 2023 bi. Mm. waaye itam qualifié équipe nationale bu Sénégal euh, ci quart de finale yu coupe du monde 2022. waaye nee na régression bi nga xam ni am équipe nationale am na ko. ci mm. classement FIFA bi. Mm-hmm. ak euh, risques yi nga xam ne ñoo ngi koy xaarandi ci sélection bi ak sélection yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal en général. Mm-hmm. nee na loolu moo tax autorité bi maanaam ministre des sports daal di jël li nga xam ni moo di décision daal di ne. Aliou Cissé euh, euh, contrat amatu ko ci équipe nationale du Sénégal donc mu invité fédération sénégalaise de football ngir ñu jëlaat seeni ay dispositions. xoolaat beneen entraîneur boo xam ni mënees na ko jël ba mu yore waat li nga xam ni moo di équipe nationale euh, du Sénégal. Mhm. maa ngi koy wax tantôt am na ñoo xam ne pressentir nañ leen ñu ngi leen di xaarandi am nañ yaakaar ci ñoom ngir ñu mën a diriger équipe nationale du euh, Sénégal ku ci mel ni Aliou euh, ku ci mel ni Habib Beye bi nga xam ni maa ngi koon wax cinq ancien international sénégalais la boo xam ni def na ay preuve def na aussi li nga xam ni. moo di jaloore ci mhm. Red Star bi nga xam ni moom la nekkoon nekk benn club bu wàccoon ca suufa suuf ci mhm. eh, ci réewum France mhm. mu yëkkati ko ci beneen niveau muy Red Star gannaaw bi ci la ca jugee ñi nga am yaakaar ci moom ni xëy na mën naa yor équipe nationale du Sénégal am na keneen koo xam ne aussi ancien international sénégalais la mu di Omar Daf bi nga xam ne aussi euh, défenseur la woon yéena ngi ko ci atum deux bi Sénégal 2000 2002 bi Sénégal demee euh, finale ci Coupe d'Afrique bi moom ak Cameroun bi nga xamee ne gagné nañ gagné nañ Sénégal par tir Euh, moom itam defoon na ci partition bu am solo ci coupe du monde aussi 2002 bi nga xam ne doon nañ ko am yaakaar naa su ma ñëw Corée du Sud wala genre foofu lañ ko doon amee ci réew yi mhm. nga xam ne moo nekk euh, ci réew asiatique yi gis nañ aussi participation bi nga xam ne Omar Daal def na ko ci gannaaw ba mu fa jógee aussi ci la dem defi formation euh, ci entre entraîneur ci la daal di am ay lijaasaam am na équipe yu bëri yoo xam ne yor na ko su ma juumul su ma juumul Nice euh, genre équipe yooyu yor na ko ci mm. équipe bu France ci Ligue 1 ah, ah kon donc kooku itam ña ngi xaarandi peut a yor équipe nationale du Sénégal mm. peut-être aussi Hervé Renard bi nga xam ne yoroon na Côte d'Ivoire jël fa li nga xam ne moo di Coupe d'Afrique bi euh, mu yoroon équipe féminine bu France euh, moom itam ñoo ngi ko doon pressentir ci équipe nationale du Sénégal te kenn ku ne maa ngi dégg ci information ni am na soxnaam boo xam ne Sénégal la dëkk mm. dafay ñëw régulièrement donc kooku itam ñu ngi koy pressentir ci équipe nationale du Sénégal donc daal mën nañu jàpp ni am na ay kàngam daal am yoo xam ne ñu di xalaat mu mel ni mhm. appel ak candidature aussi mën naa am ci boobu les postes mhm. ngir kan moo jiite équipe nationale bu euh, Sénégal ci qualifi phase qualification yi jëm ci Coupe d'Afrique bu 2025 waaye tam jëm aussi ci Coupe du monde bi nga xam ni qualification yi euh, léegi mu daal di commencé nañu fàttali aussi ni Sénégal am na yeneen ñaari match yoo xam ne yaakaar naa ci fan yi néew dina ko daal di joué loolu aussi mi ngi ñeel qualification Coupe d'Afrique 2025 euh, yi nga xam ni mhm. moo war a am Mm-hmm. donc daal euh, mi ngi noonu communiqué bi le euh, ministre le fédération sénégalaise de football daal di génne. Mm-hmm. ci ay euh, kàllaamay tubaab la ko la ko la ko la daal di bind. ñu daal di mm-hmm. koy tekk aussi ci suñu kéemtulaay kàttan ci kàllaamay coach mu ne la fédération sénégalaise de football informe l'opinion publique qu'elle a reçu ce lundi 30 septembre 2024 une lettre confidentielle de madame la ministre de la jeunesse des sports et de la culture madame Khady Diène Gaye portant non approbation de l'avenant de renouvellement pour une du contrat de l'entraîneur de l'équipe nationale à Aliou Cissé euh, pour les motifs suivants la non-atteinte euh, des objectifs assignés dans le cadre de l'avenant du 7 novembre 2022 arrivé à terme le 31 août 2024 mm -hmm. victoire à la CAN 2023 et qualification en quart de finale à la Coupe du monde 2022 la régression de notre équipe nationale au classement FIFA et le risque de, de, euh, de euh, entre notre sélection nationale et les, et les sélections et les Sénégalais en général, l'autorité a déduit comme conséquence de sa décision que M. Sissé n'était plus couvert par un contrat dûment approuvé par l'État du Sénégal et ne pouvait plus diriger la sélection nationale à compter de cet instant. Madame euh, le ministre a in fine la Fédération sénégalaise de football mm. à prendre les dispositions utiles pour assurer la participation du Sénégal à la phase de qualification à la CAN 2025. loolu mm. moo nekkoon communiqué bi nga xam ne Fédération sénégalaise de football nga xam ne Augustin Senghor moom moo ko jiite mhm. dina koy génne ngir ay leeral jëm ah, ci ah, génn ki nga xam ne Aliou Cissé génn ko sélection bu Sénégal am na solo bu baax a baax ak képp ku ñu mën a jiite ñu mu am compétence comme ñu ngi ko limee tout à euh, na doon koo xamante ne tamit na ko am chance ci Sénégal donc wax sa xalaat day ñëw léegi-léegi ngeen mun a woote ci numéro yooyu comme ni ngeen ko defee tout à l'heure Daouda Wali euh, dina fi daal di teew sa téléphone baa ngi xar nag 77 842 19 19 bu ko defee ngeen mën a wax xalaat léegi-léegi lay doon ayja mi ngi noonu mbokk yi ak xarit internetu Feeling Dakar TV jërë ngeen jëf diggam soxna Mané Chéri Ilman moom yaayu Mouhamed depuis sama tey moo fi nekkoon tey ci télé di ànd ak <laughs> di ànd ak yi nga xamante ni yéenay yéenay topp suñu ay euh, programme macha allah euh, Feeling Dakar TV la première chaîne 100 pour cent politique et people bu Sénégal salaamaaleykum ma nuyuwaat leen bu baax di leen ziar euh, di am mbégte ci ànd ak bi ngeen ànd ñun depuis ce matin ci actualité yi nga xamante ni je crois que tey. Euh, le le Sénégal rawatina réew mi nekk na ci actualité yu bëree bëri macha allah ci ay convocation ci ay li nga xamante ni moom mooy wàllum yoon ak li nga xamante ni mooy wàllum tàggat yaram dégg ngeen ko sànq kii ñëw nga xamante ni moom moo fi nekkoon le sélectionneur national Aliou Cissé actuellement kenn renouvelé li nga xamante ni moom mooy contrat am ginnaaw ba fédération sénégalaise sàkko ñu ak renouvelé mais kat ki nga xamante ni moom mooy euh, l' du Sénégal ñoo ñoo décidé kat daal di dakkal lii di contrat wu Aliou Cissé xam naa ne boo doon duggee ci ligne bi léegi ci 842 19 19. li ngeen ci indi li nga xamante ni euh, moom mooy yile yile yenn si ay seen ay xalaat ba tey ci information yi tey gis ngeen ko njiitu gëm sa bopp lee jàmbaar moom bu Bougane Gueye Dany actuellement mi ngi ci euh, loxo yi yoon ñu koy entendre euh, foofu nga xamante ni moom mooy ca cyber criminalité gis ngeen ko nu mu génnee tey foofu ca cité kër góor gi avec une forte ambiance ñi nga xam ne moom mooy ay mbokkam ay xaritam ay sympathisants am ànd ak moom moom Bougane euh, Gueye Dany actuellement nag euh, xamaguñu lan la fa nar a euh, jëlee mais dañ leen toppal boobu boobule xibaar ba tey ci wax sa xalaat bi yaakaar naa ni eh, dina bokk ci li fa fas yéene waxtaanee Cheikh Yérim Seck ak ki nga xamante ni eh, moom mooy eh, Kader Dia ñoom ñi nga xamante ni ñoom dañu am lu ñu woowee ba retour de parquet moom tamit seen ay mbir xam naa ni dina leen intéressé bu baax a baax a baax ñoom ñaar ku ci nekk ci ay kàddu yoo yëkkati woon loolu lay toppee doon na actuellement nag xibaar yoo xamante ni yaakaar naa ne depuis démb ba léegi mi ngi lëmbee réewu Sénégal ci wàllum yoon ci wàllum action. actualité politique euh, ci wàllu encore une fois tàggat yaram ku nekk xam nga ni fi mu toll ni moom amuñu in euh, ki amuñu sélectionneur national wala bokk euh, ci ay xibaar ñu nga xamante moom mooy Pape bu yees seen xalaat ci yële yële information ci actualité bi riche bi macha allah 842 19 19 842 ñi nga xamante ni saa su ne bu ñu àddoo ngeen bàyyi lépp di bàyyi xel di gëm nag sànq ce matin euh, suñu jigéen macha allah moom euh, maane nekkoon fi euh, di ànd ak bu baax a baax ci fi nga xamante ne moom mooy ci plateau bi mbokk yi ñu ngi leen di xaar ci seen ay contribution ci waxtaan bi ci 842 19 19 842 19 19 mu mel ne que am na benn mbokk bu njëkk a woote mu jël ko waxtaanam salaamaaleykum ku baax. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. ndax na ko ndax na ko zaalika. ah tubaarkalla dama bëggoon dugg si émission waaw ah, yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa waaw. voilà donc euh, ginnaaw bu ma sant yàlla julli Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam. dëgg la. maa ngi nuyu maa ngi nuyu maa ngi lay nuyu di nuyu euh, sa équipe bi foofu yëpp. jaajëf ku baax. di nuyu bépp Sénégalais foofu mënti nekk si àdduna bi. Euh, di nuyu kilifa diine yi di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn. mais sëñ bi. waaw. gars yi bëgguñu Sénégal. gaayan gaayan. Euh, su ma ne gars yi bëgguñu Sénégal. waaw ñun ñun ñoo voteel Diomaye président ñu am cinquante quatre pour cent. dëgg la cinquante donc euh, euh, loolu dafa amoon processus. Mhm. y a eu beaucoup de morts. ndey. ñu bëri yàq seen alal yàqu. ndax régime bi fi nekkoon. Mhm. sëñ bi ñun duñu ay pas ñun bokkuñu Pastef. ñun ay patriote la ñun Sénégal rek moo ñu yor. yàlla bu ma tiim man mosuma gis Ousmane Sonko. Ousmane Sy Diomaye ak yéen rek.